ndaje bi euh, dañu togon lu yagg amul ay problème ñun ñep ci gox yu fasantikoo yi ñu daje nag wat boole ñep boole borom kër yi borom tol yi borom magasin yi manam commerçant yi ñi yoron école ki dara ak ñi nga xamanteni ay terrain ñu lañu ñoon ñep ñu andando def ben bloc biñu défé bloc ñun nak bi yoon

boo bindee ñoom ñu gis ni li ngay wax ni yanu na maanaa ñoom dinañ ñëw caytu loolu ñu ko defee ñu dem ba gis ni li ñu doon wax am na maanaa ci la banque yi engagé wu AFD ak Banque africaine de développement ak état du Sénégal ñu engagé wu ni ñoom kon lii nañu àndandoo càmbarandoo xool ban saafara lañ ci def loolu waral le 21 février 2020 ñu xaatim benn protocole maanaam benn kayit buy wane ni déggoon nañu ci ngir mën a demandoo saafarandoo loolu biñ ci duggee waxtaan bi ñu tënkoon ko ci juróom-ñaari poñ. te fi mu nekk nii jëbbal nañu kayit yëpp banque yi banque yooyu nag ñu ngi tax bu ñu demee ba liy tàggateem ba am na beneen levier maanaam leneen lu ñu mën a def pour indiwaat loolu maanaam au niveau pour ñu appliquer leen normes internationales mooy am na santaane yu mu defoon. léegi nag am na ndaw yu muy yebal ñu ñëw càmbar li nga xamante ni moom la ab ci def ndax méngoo na ak ñoom lañu ñu santaane sur seize mille pap bu fekkente ni am na ñaari junni ñoo xamante ne nee nañu li nga def kontaan luñ ci doxul jaarul yoon santul yàlla yow kay li la war te ñu toog waxtaane ko bàyyir bi fekke ñun ñëpp ñu toog ñu ne nii lañ ko mën a saafara jàngoro bi amul beneen saafara mooy ni ñuy wax ngeen baal ma ci expression bi tekki tubéy rek moo fi nekk ñu jël dossier yi ñu ci war a teg yëpp teg ba pare nga bëgg a tuumoo nga bëgg a tuumoo mais nag nañu xam ne ñoom jël nañ avance suñu avance ku ko lekk di nga bëri